asalaamaaleykum mbokki géewul asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii tey ci géewul ci quartier bi ñuy wax Guinée muy fàkk dëkk quartier bi nga xam ne daanaka moom lañ mujj sanc fii ci géewul tey nag euh, bu ngeen gisee géewul TV wàcc fii géewul TV day dox ci li nga xam ne moom mooy soxlay askan wi tey nag ñu woon ñu fii ci benn situation boo xam ne am na fii ci li fi nga xam ne mooy Guinée muy poto lampe yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo tëdd fii te poto lampe bu nekk rek ànd na li nga xam ne moom mooy courant ñu nekk ci euh, nawet te xam ngeen ne nawet ak courant euh, danger la gis poto yëpp tëdd parce presque euh, biñ ko dee biñ biñ ko dalee wootee ba léegi mat na semaine gisuñu kenn koo xam ne réagir na pour régler poto yooyu te xale yaa ngi suuf poto yi di football di dàqante te loolu it wóorul danger la ñu ne woon tey jii kat nañu wootee ñëw fii nga xam ne moom mooy Guinée wone li nga xam ne moom moo fi nekk pour ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, dëkk bi di autorités yi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ñu ñëw ci lii jàpp ci ba nga xam ne loraange du fi am ndax courant xam ne euh, jëye yi muy def fii fas yéene woon askan wi fas yéene woon ne ñoom ñoo nekk ci wàllu courant bi xam ne lii nekk fi tey danger la te tamit mën na jur musiba moo tax ñu wàcc woon fii tey doon leen wan li ngeen xam ne moom moo nekk fii mooy poté yi ngis yëpp ñu tëdd xale yi nekk ci suuf di fo moo tax ñu ne woon na fi taw taw bu metti ndax mu bari di fi taw di taa ci mbedd yi nga gis mbedd yi poto wàcc fii daanu li nga xam ne mooy fili courant yi nekk fi te xale yaa ngi fiy jaar heure bu nekk guddi gi ak bëccëg gi yëpp te dafa nekk loo xam ne danger la ñu bëgg di oo autorité yi ñu jàpp ci pour li nga xam ne moom mooy nekk fii ci fi Guinée ñu jug ci balaa mu ni euh, jéya bala moo jur loraange kon ngeen topp ñu dugg ci askan wi fas yeneen la taataan seen kàddu ñoom it lan lañ ci wax ci situation bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Guinée kon ngeen topp alors asalaamaaleykum waa Ngouma Jéewul ma président conseil Mhm. waa Géoul TV tey dafa ñëwoon seet suñu koñ bi parce que dafa am benn problème boo xam ne moom fi plus de deux semaines loolu nag mooy yëkkati woon seen tànk pour ñoo xam quoi la moo ko waral quoi. Mhm. ah Diaga tey ñu gis ne euh, dugg si fi nga xam ne moom mooy euh, Guinée. Mhm. di fi ñuy wax fàkk dëkk. ñu gis tey poto yëpp tëdd ci suuf. Ah, ah, lan moo waral euh, daanuwaay poto yi ak ndax ñi nga xam ne war nañ ko yëg yëg nañ ko. bon daanuwaay bi war na am deux semaines temps si ginnaaw am na benn guddi boo xam ni. amoon na ngelaw li met métti li fi awoon ngelaw loolu nag moo moo woon poto yi daanu ko ba si bee tëdd boobu ne man le soir laa fi jaar dem entraînement waññeeku gis ko bëgg see nag sama sama xel mee ma ni mën naa woote ma woo nag woo naa kan war a woo wax naa li ma koy wax mun moom léegi dinaa visé waa Senelec mais depuis loolu affaire dafa yàgg lu ma deux ngi nii si li wóorul démb ba muy taw courant coupé wul te booy fii ñu fubale te filière du courant là te lu nek lu am pour éviter lolu am nak ñom war nañoo def seen këm lay kattan quoi pour jéem régler problème bi parce que mo bëgg jax parce que war na am deux semaines ah li may wax nii deux semaines ah. mën na lan ngay wax euh, ñi nga xam ñom ñoo nek fi ci bop euh, dëkk bi muy wa mairie bi yan kàddu nga leen di oh waa mairie bi bon li ci amé amee quoi ñuy wër koñ quoi yu melni di di laccé quoi di gëstu xool koñ li fi am parce que li ñom tamit li buma ma leen woowee ñoom. kama kama boobu moom xam naa ni moom ñàkku ni moom ñëw na fi mais amu si am quoi am war naa ko mais en retour amu information ñii ñëw na fi wala ñëw fi mais nag xam naa ni moom yëg nañ ko te boobu léegi problème bi kenn kenn liggéentu ko te li wóoratul fi ne nii mun naa gul ne léegi li mu leen nii may ñaan moo di ñu jug si balaa moo gën a indi fi kii kii quoi jëye yoo xam ni kenn xam fu muy yem parce que li wóor wóorul si nga booy yaa yaa si ñu fubal yaa si poto yi tim kër yi te wóoratul mhm. ah xanaa di leen gërëm di leen sant rek lu mel ni ban lool ngeen dugg koñ di laajte xool problème yi ñu koy jéem a seet ñu ko ñu ko réglé moo gën a dëkk tëdd dinaaw rek li moo am solo trop. Ah, macha jëf jërëjëf jërëjëf alors ci fi nga xam ne moom mooy quartier eh, Guinée tey ñu gis ne poto lamp yi eh, daanu nañ fi ah, fàkk dëkk ñu gis ne tey poto lamp yi daanu fii yëpp naka ngeen dundee li nga xam ne moom mooy fii li daanu fii ak poto yeeg eh, nawet bi ak ngelaw la ñoom sax. ndax si taw moom dañuy toog rek di xoole suñ xel yi du dal benn yoon te xale yi gis nga ñu ngi fa bal te lii danser la danser daal mënut a weesu li waaw luñ si mën a jàpp daal pour mu gaaw ah, lan ngay wax ñi nga xam ñoom ñoo jiite ci dëkk bi muy waa maire bi yan kàddu nga leen di euh, lancer pour ci li xew fii ci seen koñ bi xanaa ñu taxawuñu rek ndax ñoom ñoo ñu mën a taxaw hmm. ñu taxaw ñu baax ndax ay xale yi ndaw lañu yar gis nga sama doom barki dem ci fil bi la jàpp te loolu danser la hmm. te maa ngi tëdd feebar boobu yëguma si dara bu yi taw guddi tamit du nelaw man loolu rek laay xalaat su may tijji sama bunt damay xalaat poto yi ni muy demee te day bëgg a diire. tur bi tur bambuñu tur bi. man Fatou Fall laa tudd. Ah, ñu ngi lay jëfal waa ñu gis seen teewaay fii tey ci seen mbedd mi tey ñu gis jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy jànkonteel ci nawet bi muy fii lii tëdd ci suuf ak li nga xam ne mooy ndox mu taataa mi ngeen yor ay xale. naka naka ngeen di dundee loolu tey ci ci biir nawet bi. noonu lañ ci sonne mhm. buy taw dañuy sonn bay bëgg a dee. Mhm. di xalaat taataa ndox yeeg yooyu. ak courant beeg yooyu. Mhm. non lañ ci sonnee kay ak porte lampe ñu ñu jaaxale buy taw dañuy tit bay bëgg dé du nelaw man de surtout man damay daw genn dem wuti ji fu ma walloo ji ndax dama ragal lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ci bop li nga xam moy dëkk bi xana ñu profito rek pour défar poto yi ndax li mom danger deug la ndax buy taw côté bu ne ngay bëgg jaar da ngay ragal do xam noy def da ngay mujj couper sa courant sax ndax ragal billaahi ah, tur wi naka la xaar njaay ah, xaar njaay ñi ngi lay jaajeufal kaddu yi na solo jërëjëf merci entraîner wu fii ngeen gis fi li ni mu ñom fi terrain la ñu nekk ci entraîner wu waaw ah, ñu gis tay li nga xam mom moy mooy lampe yu tëdd fi ci sen terrain bi te mu nekk lo xam danger mu nekk mu am courant ah, yan kaddu ngeen di sanni ci ci lolu nga xam fi waaw dañoo bëgg wa maire bi ñew jàppale ñu rek fi yëkkati fi li na fi xoola boy boy booy yëpp fi lañuy footballé ak ñun ñii fi lañuy entraînement yi te xam nga lii waaw courant bi ak terrain moy lool non noonu te avec ça li dafa nek ci bir koñ bi ba légui moy lool non di wax waa maire bi daal ñu dimbali ñu rek gaan buñ ci mënee jàpp ñu jàppale ñu kiiwal ñu poto yeeg yooyu noonu daal lii danger la quoi. ban ban ban la tëdd nii ba léegi. ñaata fan la war a am ba mu wàccee ba léegi. mat 15 jours. ba mu tëddee ba léegi. waaw deux semaines kay mën na moom. waaw dëkk bu toll nii deux semaines di tëdd fii poto yi loolu du yoon mooy loolu noonu. Ah, bamtuñu sa tur. man Adama. Ah, Adama Thiam Adama Thiam. Adama Thiam ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf kàddu yi na solo. li nga xam ne moom moo ñu yëkkati muy Géoul TV askan wi rek moom moo ko ñor lépp loo xam ne askan wi jàmbat nañ ko rek dana ñëw teew fa seetlu lan la ñu gis ne li ñu wooyee tey gis nañ poté yëpp fii euh, ñu jano ki nga xam ne Adja bi dëkk fi moom it yor ay doom fii ay tànk ci koñ bi Adja ñu ngi lay nuyu waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax mm. di leen fay le maire tamit mm. di wax ne gis nga suñu poto yaa ngi nii mm. tudd ñu tax bu nelaw ba yandoor gis nga ni mu sëggee nii suñu doom yaa ngi nii fii la ñuy footballé mm-hmm. fii la ñuy fowe ak poté yi nii ak taw bi gis nga taw dem bi timi gis nga lim fi yak sunu mir yeb dafa daanu poté yeb yéen ko gisandal sen bop ñi ñaan nak monsieur le maire mu ñu ci te yalla rek tax mom mi fi nekkal askan yu nekkal fi ñep wa ñi ngi koy sakku dal mu ñu si poté yi ndax ñun ñu nelawatuñu defuñu dara ñu tollu bu ñu bundee añ tax sunu doy bu football fi tax sunu xel du dal dañuy daal di jog di xool sunu doom yeeg poto yeeg kuuraay kenn ñemeetul yónni sa doom guddi fii kenn ñemeetul yónni sa doom ku yónni sa doom guddi yaa ngi toog di ko xool ndax courant bi yooyu fi ñu toll nii booy jaar tax da ngay da ngay daal di kii da ragal bi bëgg dee waaw ñu ngi ciy sàkku daal mu dimbali si lii li ngir yàlla rek. waaw ah, tur wi naka waaw man Oulimata Niang laa tudd. waaw ah, Oulimata ñu ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf am na solo jërëjëf. ñu ngi baax a baax. Ah, tur wi naka la. Pape Thiam waaw Pape Thiam ñu teew fii fi nga xam ne moom mooy fàkk da gis seen poto yi mu tëdd nii yan kàddu ngay sànni ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi ah kàddu yi may sànni mooy sa kàddu soññe ak kàddu ñaax parce que lii presque ça fait deux semaines ça fait deux semaines ëpp na ko sax mm. man j'ai pris l'initiative de l'appeler l'adjoint du maire Abdourahmane je l'ai je lui ai appelé au téléphone personnellement mm. je lui ai expliqué que y a ni dañoo fii donc so de quatre photos yo xam se ni nii li woor parce que fi heure bi ni ñepp fi la di dajalo di football donc c'est un danger mën mën mën na laal ku nekk té xam nga ñoo xam se ni avisé nañ la avisé waat la c'est pas normal hein ah? kon li war nañ ci mëna taxaw ndax fi xol xalé yépp jodi bi jangi jàngiwun vendredi fi yépp la ni fowé té li courant la woor donc mën mën ñu japp lañu ci bu baax ah loolu loolu dal lañ leen di soñé nañ ci japp bu baax parce que ñom dëkk bi moo tax ñuy liggéey donc bu ñu amee yoo xam se ni dafa yàqu ci dëkk bi ñoom ñoo war a mën a ñëw taxaw jàpp man woo ko personnellement wax ko expliquer ko lii donc boobu ba léegi ça fait deux semaines yàgg na yàgg na voilà yàgg na Pape Thiam Pape ngi lay jaajëfal waaw kàddu am solo jaajëf merci sendoo yéen a ko déggandoo ngeen gis ne liñ fi leen fi won fi muy nekk loo xam ne risque la danger la ci xale yi ndaw yi nga xam ne war nañu ndax xale xamul dara tey fii li ngeen gis tëdd yëpp dafa am courant te fi terrain la boo xam ne xale yi dañu fi football kon ñi ngi woo ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci bopp dëkk bi muy autorité ñi ngi leen di woo ne leen nañ luñ mën a def lu gaaw gaaw rek ñu jàpp ci lii nga xam ne moom mooy pot yi tëdd fii nga xam ne mooy fàkk dëkk mu nekk danger boo xam ne tey bëgguñu mu jur jëya nañ ci taxaw wo ñi nga xamne ñom ñoy yor walum courant bi wa senelek ñu ñew teew fi ci fi nga xamne moy fakk dekk defar poté yi nga xamne ne ñoo fi ñi ngi wo kep ko xamne rek yaa ngi ci dekk bi te am kaddu go xamne won nga mëna jappalé ñi nga xamne ne ñoo nekk fii ci fi nga fakk dekk geewul TV mi wacc si woon doon leen jël ci li nga xamne mo xewon ci fakk dekk ñi ngi leen jox dig daay ba beneen inshallah jëre allah ngeen jëf oh, Yeah, my, oh, yeah, my, yeah.